Euh, merci beaucoup abi fidèle téléspectateur yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo site internet yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant euh, tey nag ñu ngi ci bésu appel Seydina Limaamu Laay borom yaa masharal jinni wan insi inni rasulullahi alaykum ñu taseek soxna soo xamante ni macha allah partout au Sénégal ñu ngi koy bàyyi xel à travers jëf rafet ji nga xamante ni moom lay def waaye à travers milieu bi nga ni ci la nekk di yëngatu mi milieu showbiz ñu gën a intéressé mooy appel bi nga xamante ni moo ni fi dajale yaa awa ñu ngi lay char baax baax di la jox sa wàccuwaay maa ngi delloo ziar bu baax a baax euh, di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan mbokk internet je peux dire li nga xamante ne bi ñooñu safoo di ñu di ñu ñu topp fu nekk maa ngi ziar ñëpp di màggal ñëpp ci bésu appel bi nga xamante ne bi mooy cent 143e appel Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam ñu bëgg doon nag ay dëgg-dëgg taalibe ndax nekk taalibe moom neex na ci làmmiñ waaye est-ce que ki ki ngay ci ki ngay ci ngay jox sa sa taalibe est que dina la ko nangul mm-hmm. ñu ñaan yàlla bokk ci taalibe Seydina Limaamu yi bokk ci nga xamante ñu nangul ne Baay Laay moo Rasulullaahi mm-hmm. te gëm nañ ko wóolu nañ ko aussi moo tax yàlla may ñu kàttan ak fekk ba ñu fekk waat ko ren Euh, ñu gis ni euh, ci li nga xamante ni moom lañ gis démb ci cérémonie officielle bi ak tey aussi tamit li nga xamante ni moom la kilifa diine di ñaan mooy jàmmi réew mi te jàmmi réew mi nekkul ci kenn ku dul ñi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi actuellement muy les hommes politiques ci jàmm jooju est-ce que yaa awo pare na pour revenir ci nga xamante ni moom la kilifa diine yi wax ci jàmmi réew mi. waa xam nga paix intérieure mooy li am solo ci doomu aadama parce que jàmm boo ko amee sa biir xol moom ngay refléter ci loo nekk parce que comme li ñuy wax suñu sang bi lim ñu jàngaloon mu Chérif Ousseynou Laye ñun lu ñu lu ñu sant rek doyul ndax yaakaar naa ni daaw ñëw ngeen fekk ma ma appel sama kër laa ko defee ren ma am ndigal sama sëriñ ne damaa bëgg nga ñëw ci biir kër gi fii kër Chérifou Ousseynou Laye la dendek la jaaw yaakaar naa ne jàmmalaay mu ngi suñu ginnaaw nga ñëw nga appelé ci biir kër gi te bu doon leneen la amaana du ngeen mu gis fii mu jox ma ndigal li ma ñëw defee ko fii ak kontante nag ak fierté ndax loo def benn yoon mu jik la nga defaat ko sa biir kër sëriñ ki nga yaakaar doyloo ko àdduna ak alaaxira kon loolu rek sant yàlla la parce que am na ñoo xam ne peut-être doon nañ wax que ne est-ce que moom dina appelaat déwén. yàlla dimbali ma li ma gënoon bëgg li ma gën a bëgg sama at la ma yàlla defal mooy fii ma ko defee muy kër Chérifou Seynou kon man kuy sant rek man maa ci war a jiitu saa su nekk parce que yàlla chaque jour mu ngi may di ma dimbali di ma yokk ba may mën a jël si sama xéewal yi ma yàlla defal ma koy def ci jëmm ji nga xamante ne aw ma lu dul moom yaakaaruma ku dul moom. àdduna ak alaxira bu nee yaakaar nag du dara mooy li lay yokk jom parce que boo xalaatee nit ki ne kii moom laa bëgg moom laa doyloo te woowu la ci lenn lu dul diine jëf ju baax ak wax ak nit yi ci anam bu teey te sell ñun ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy dox ci diine la ñu yar ci la ñu màgg ci incha allahu ci la ñu bëgg a dee incha allahu ba dekki fekk ji bay lay mais est-ce que tamit nekkul polémique yi nga xamante ni ginnaaw appelu daaw ba bi nga ko defee mu jur polémique ci àdduna bi yëpp tax moo tax sëriñ bi jël la xëcc la ci wetam pour nga defee ko fii nga xamante ni coow li yëpp moom dina ko mën a dékku après. non du du coow xam nga li ma waxoon daaw moom laay waxaat ren mooy ñi fi nekkoon daaw yaakaar naa ni ñooñu tey ñoom ñu ngi fi waat te ñoom ña fa nekkoon ñëpp gisoon nañ la fa am. du woon dara lu débordé peut-être bu dee lenn lu débordé la askan wi gisee ko loo xamante ne bii du lu du lu du lu jaar yoon te ku ne xam na ne ay xiir ñu koy utiliser bari na ci kër diine yi te ñooñu ñoo fa nekkoon ñu suñu mbokki murit ay cantaakun ñëwoon pour ziyaare si ma indi ko waaw peut-être déggin bi déggin bi bokkul woon ak nit yi li ñu doon xaar ci waa kër Seydina Limaamu ndax kër bay Laay kenn xamee ñu ay tëgg kenn xamee ñu dara te bañ ko defee génn nañu ñu jéggalu ñi ñu war a jéggalu mooy ñi nga xam ne bokk nañ ñoom ñoom tarixa bi te amaana giseewuñu ko giseewuñu ko loo xamante ne noonu lay demee à part loolu man gisuma ci lu mal te comme moom ni ñu ko waxee xam nga yaakaar naa ne sama sëriñ man bu ma meree woon du ma ne ma ñëwal ñëwal nga appelé ci man danaan danaan kii nañ ko baay mu dem. mais waa comme li nga wax protection boobu la ci bëgg moo tax mu ne naa ko xëcc mu ñëw sama wet su ko defee lépp day nekk benn kenn du kenn du ci frustré wu te kenn du ci am lenn loo ciy wax quoi lu ñaaw non xam nga xam nga dafa am loo xamante ne bii loo loo daan def defatoo ko soo ko deful dinañ ne dafa am lu tax te nag dara taxul parce que tey la ñu gën a sant li may wax bu dee ay xéewal tey lañ ko gën a am kon ñun yàlla fàttewuñu di te bu dee ci cadre yokkute ñu ngi yëg suñu suñu bopp que ne ñun ñu ngi yokk kon loolu sant yàlla la te duñ ko santee kenn nag li wax santew ñu ko Jean santew ñu ko Paul bu ñu santee yàlla ba pare dañ naan ku santul nit doo sant yàlla ñun lu ñuy sant sëriñ Ousseynou Laye la ñuy jiite suñu sant keneen kuñ ci teg ñu teg la ci parce que am nañu ay yaay am nañu ay papa mais ñun amuñu kenn ku dul Chérif Ousseynou amuñu kenn ku dul Mame Seydi muy doomu Chérif Ousseynou di taawam nekk ci kër gi dalal ñëpp ubbi buntu yi amul kenn ku ñu ne defal lii wala defal lii dañoo ubbi yi ñëpp ñëw pour lekk ñu appel appel Seydina Limamou ci jàmm ak salaam ak fair play bu paree ñëpp nekk ci jàmm ñu xewlu lekk naan parce que lépp a fi nag. fépp la ñuy fàtt ci lekk amuñu amuñu kuñ naan lii wala laa lu waaye indi rek di nga ko fi fekk. bu dee jàmm la mu ngi fi safaan nag ñaan ñu ko suñu borom ñu ngi ñaan suñu borom gën ñu jàmmal daal dimbali ñu incha allah. bon li may li may wax rek mooy damay santaat yàlla di gërëm nit ñi nga xamante ne fu ñu mënti nekk ci àdduna bi ñoom ñu ngi xool parce que gis ba appel jotee ku nekk mu ngi naan. xam nga rek ñu góor góorlu li xewoon bañ a xewaat nangam ak nangam dinañ wax ka ni ñun ay nit lañu conscient ay nit yu am éducation yu nu yar lañu. parce que lenn loo def boo ko defaatee loolu màttay la kon loolu dañ ci tiire exemple pour bañ ko defaat pour war a nekk ci yoonu si siraatal mustaqiim ci jikko ak jëf ndax nit yor na alalam def ko ci lu ko neex waaye ñun préféré nañu ñun appel bu jeexee tey ci guddi tey la ñu commencé waa dajale jëmaat déwén parce que lii mooy suñu yitte la ñu am lii kese la ñu amuñu leneen. moo tax ku ma fekk si si lii man dama lay du ma la tegoon fii dama lay yëkkati parce que amuñu lu dul appel Seydina Limamou amuñu leneen man événement bi gën mag sama àdduna appel la ci laa yëgee ni man mbégte mi may am duma ko am ci benn événement xol bu sedd may am moment bi lu ma waaye wax dama la koy baal yéen xam ngeen sax li leen di wax lu waaye wax dama la koy baal lu def dama la koy jéggal parce que naa Limamou rek la ñu am te bés bi mooy yem mook bés bi mu woote woon ajiboo daay yàlla yaa man saral insi wal jinni nii rasulullahi ilaykum ñun nag ñu gëm ko ci bu wér tooguñu pour bëgg gëm nii déedéet dañoo xool ba xam li mu wax ndax dëgg la nu gëm ko wóolu ko xam ne moom rek kese la yàlla yónni ci bu wér ñu gëm ko waaw mais ñu gis ni jamono bii yenn nitu showbiz ñu ci bari dañoo changé maanaam ci wàllum diine ñii buñ defee buñ fooyee ba heure bu leen deex bu gàmm jotee dañuy gàmm bu màggal jotee dañuy gàmm mais dañ koy def ci norme yi nga xamante ni moom la ko yàlla bëggee yonent bi bëggee ko noonu sëriñ bi nga xamante ni ci lañ cokk bëggee ko noonu est a dem ne li ngeen nekk du dëgg ngeen a retourner waat nekk ci yoon bu jub waaw ak bëccëg la su guddi amul woon bu bu doon woon amuñu doon dara lu ñuy làq-làqal yàlla du sàkk guddi day bàyyi lépp muy leer ku ne di teg sa bët waaye am loo xam ne nit du ci teg bët nit du ko sax felesu ba di ko xool na ci loo xam ne boo ne da nga ciy nekk parce que am na loo xam ne liggéey la. sow business la boo nee sow biz show business la. bu amee business nag mooy loo xamante ne bii da nga ciy liggéey nekk ci pour li nga war a am nga am ko. parce que boo liggéeyul ci biti mënoo indi fii. pour nga sant faw nga liggéey. pour nga liggéey faaw nga nekk ci dara pour mën a am indi ko sëriñ bi parce que sëriñ bi dañoo toog di ko xool ay bët. wala nga naan lii laa gëm nekkoo ci dara booy taxaw ci dara da ngay am ndëgë ndëgërlaay bi mooy liggéey. benn secret la boo liggéeyee da ngay am loo mën a jëri jëriñoo ba doo taxaw ñaan kenn sant nañu yàlla nag ba appel bi demuñu ci kenn yóbbu yóbbuwuñu soutien kenn do tàlluñu kenn carte ñu dara woone nit ñu am na leen dañuy dañuy appel ñëw leen ñu appel ci jàmm ak selam le reste nag suñu borom dimbali ñu ba saa su nekk at bu nekk heure bu nekk ñu mën di ko def comme ni nga ko waxee sànq nga ne nitu showbiz yi nitu showbiz amul ñëpp ay doomu aadama ma peut-être ku nekk da nga am ci cadre boo nekk di di ci liggéey comme ñun ñi nga xamante ne bi dañuy woowee ay influenceur dañuy influencer ay nit pour que ñu mën ñu xool ñu mën a jaay lu keneen di jaay ñu mën ko ñu mën ko poster pour nit boobu jënd ko loolu liggéey la parce que ki ngay poster daf lay fay show bi nga nekk mooy que ni ki nekk ci show bi kooku moo mën a jaay lu nit yi comme xam nga diine dara jaayu fi dara dara mayoo lépp dafay jaay parce que jëf bi ngay jëf suñu borom daf la koy fay te léegi lim la koy fay mooy loolu looy liggéey la avant tey nga mën ko jëf fii nii pour man pour mën a jël loolu exploiter ko ci ni nga ko mën a exploiter sans dépendre ci gis-gis yi mais conviction moom solo gëm-gëm moom solo te nekk na ci ñun am nañu yaxin que ni ñun ay taalibe lañu yoo xamante ne tuxuñu naanuñu defu naka su dul noonu jëfi àdduna yóbbuwuñu ñu ngi fexe di matal waxtu julli yàlla yi di woor di génn asaka di saraxe li ñu war daal ñu ngi ci am nañ suñu werde heure yi ko war a werde lañ koy werde bu ñu ci paree pare nañ ci suñu paree nag dañuy sol suñu dàll dem dox suñu soxla Mm. est-ce que des fois ñàkk moom ay jàng bien sûr man lu mënti xew muy muy suba di ngoon di fajar daf may woo téléphone defal nii defal nii defal nii keroog ba appelu daaw ba wax ji amee moom moo ma woo jox ma ndigal dama génnal nga jéggalu bu du woon moom man mën naa toog fu ma toog man amu problème boobu mais lépp looy def comme lu may wax da nga jiital sa kilifa moom mooy sama kilifa te ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy dox saa su nekk et que ñun amuñu benn problème ak kenn wax dëgg yàlla.